pour cent xibaar maa la ko wax te nag télé bi fépp la yegg Sénégal de décodeur TNT ba nag ñu ngi canal 33. leen ay xibaar yu gaaw TV di télé bu bees bu andi ay émission yu bees tàq ngin bëgg am ay xibaar yu wóor ci dardar gi daw leen. Enfin prendre le temps. xaaju guddi mooy jot uh, foofee ci njaga ñaaw ak uh, li ko wër mbokk yi uh, li jaajëfal ci teewlu bi ak seen télévision Leral TV dale nag jàmm ci xibaaru xaaju guddi gi ñu daal di dikk ak yéen ci li gën a fës ci bopp bi. ci bëccëg ko àllarba ji ñu génn foofee ci tribunal grande instance bu Dakar cour d'appel bu dakaar noonu nag daal dinañu euh, daal di fësal résultat yi nga xamante nag mooy ndëggandiku laata nag ñu joxe yu officiel mu jëm nag ci tabbuk njiitum réew ci Sénégal ci noonu nekk jàppale ni président cour d'appel ba noonu daal dinay fësal moom Amady Diouf lu toll ci fukki candidat daal dinay fësal toll ci fukki candidat ak juróom-ñeent yi nga xamante ni ñoo doon euh, jongante ci li nga xamante ne moom mooy présidentiel bile ak ka nga xamante ne moom moo jiitu ci raw gàddu gi euh, ci wàllu yoon ak yoonal ci euh, Sénégal jàpp leen ni famille Samba Thior ndem si yàlla Diagne moomay nag muy ab doomu Sénégal bu ñu fàtt foofu ci France ci fukki fan ak ñaar jàpp fukki fan ak ñett ci weeru mars. foofee ca Lille jàppale ni nag njaboot gi jamono ji daal dinañ wax ni avocat bi maanaam ka leen di layool muy euh, maître Emmanuel Lequian mu daal di nag déposé a plainte boo xam ni dañuy daal rek jàpp ñu ko daal di def li ni mel nga xam ne nag informaticien la woon amoon fanweeri at ak euh, benn. Eh, ci wàllu tàggat yaram la ñu koy ndar keppe ginnaaw bu ñu jiitee xibaaru bitim réew muy nag jàmbaar football club eh, jamono ji ba tey mu nekk ci ay jafe-jafe ci championnat football professionnel Ligue 1 bu eh, Sénégal jàppale ne nag mu ngi ci fukkeeli place mu ngi nag ci place yu mujj yi ngeen baal ma ci bile championnat ci fukkeeli journée ak juróom-ñett mu ñu amal ci Ligue 1 mbokk yi bu ngeen taaxarloo itam ñu daal di faram fàccee yeneen xibaar ci xibaaru xaaju guddi yéen a ngi ñuy tamit ci Leral FM moo xam fii ci Ndakaaru 96 point 1 ca Touba Mbacke Sikicoor ak Kaolack 100 point 4 asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñu dooree xibaar yi ak ki nga xamante ni euh, moo nekk euh, njiital. Diomaye président di secrétaire exécutif foofee ca diwaanu Thiès moom nag yëkkati na ay kàddoom ginnaaw bi nga xamante ne ca dibeer bi ñu génn ñeel tabb njiitu réew ci euh, Sénégal tollu nag ci euh, téeméeri junni ak juróom fukk ak ñaar yoo xam ni euh, ci ay xob seen candidat daal dina koy am mu daal di jël raw gàddu gi ci kaw Amadou Ba foofee ca diwaan bu Thiès mi nga xamante ne moo jiite coalition Benno Bokk Yaakaar noonu nag Abdoulaye Sall bokk ci FSDBJ yëkkati na ay kàddu ginnaaw bu ñu amee ndam nee na euh, ci euh, li ni ci dongante présidentielle yi. mooy jàll na ci jàmm ak salaam euh, loolu moo newoon premier objectif bi deuxième objectif bi c'était de gagner les élections dès le premier tour et par la grâce de Dieu avec le concours des Sénégalais euh, on a eu à atteindre cet objectif donc loolu sant la. Eh, di profité wala ci opportunité bi wala ci occasion bi di remercier l'ensemble de membres de la coalition Diomaye Président du département par ricochet les quinze communes yi nga xam ni ñoo constitué le département et nous avons eu la chance de parcourir les quinze communes avec les coordonnateurs communaux avec les bureaux communaux di leen jaajëfal ci liggéey bu mucc ayib boobu nga xam ni def nañ ko sur l'étendue du département de Thiès mais aussi di defal mention spéciale au coordonnateur euh, du département monsieur Adama Diawara Euh, di defal aussi tamit mention spéciale a monsieur le coordonnateur de la commune de Thiès Est muy maître Ousmane Diagne et tous les autres coordonnateurs des différentes communes euh, de la coalition yi nga xam ne ñoo nekkoon ci terrain bi ak ñun guddeeg bëccëg di ko di def liggéey bu mucc ayib bi nga xam ni moo ñu jox résultat bi nga xam ni moom la ñu am au soir du 24 mars. Euh, élection yi jàll na ci jàmm ak salaam. ci les jongante présidentielles la ñuy desandi ak président cour d'appel bu tribunal grande bu Dakar Amady Diouf daal dinay janoog taskatu xibaar yi ci bëccëgu àllarba ji ñu génn yem ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars noonu ñu nag jàppe ni résultat yu mu daal di génne nii la daal di tëddee wax nañu nag ci ka jiitu ci candidat yi muy Bassirou Diomaye fay mi ngi am ñaari téeméeri million yu toftal nag ñeenti eh, téeméer ak fanweer ak ñaar ci yi nga xamante ne am na juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak benn ci ay xob loolee nag boo ko xayma ci wàllu pourcentage ci téeméer boo jël juróom fukk la ak ñaar yu daal toftal ñaar fukk ak juróom-ñett ci pourcentage ci électorat bu Sénégal ka ca topp nag di amadu Ba moomee nag am na benn million yu toftal juróom benn téeméeri junni ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ci ay xob yoo xam ne sànni sànnil nañ ko ko ñoom askanu Sénégal loolee nag boo ko xayma ci wàllu pourcentage toll na ci fanweer ci téeméer boo jël fanweer ak juróom yu daal toftal juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent topp ci moom di Aliou Mamadou Dia nekkoon candidat bu PUR muy ñetteeli place bi moom moo ko daal di jël am téeméeri junni xob ak ñaar fukk ak juróom yu daal toftal juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk boo ko xayma ci ay pourcentage te daanaka boo ko jëlee eh, ci téeméer boo jël ñaar la yu daal toftal juróom-ñett fukk ci ay pourcentage ku topp ci moom di Khalifa Ababacar Sall ak Idrissa Seck ñoom nag ñoo daal di jël ku ci nekk ñeenteeli ak juróomeeli place bi ci bile classement wax nañu nag euh, kii si jiitu am na juróom-benni euh, téeméer juróom-benni junni ay xob ci juróom ak juróom-ñeent. yu toftal juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk noonu nag ñu sànni ko ko boo ko xayma ci pourcentage. ci téeméer boo jël benn la bu daal di toftal juróom fukk ak juróom benn noonu ne kii di am dara am nag euh, ngeen baal ma ci euh, ñeent fukki euh, junni ci ay xob yu toftal ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn boo ko xayma ci ay pourcentage daanaka dara bu dal toftal ñeent juróom-ñeent fukk ci ay pourcentage Boubacar Camara moom ñëw na am ñaar fukki junni xob ak ñett yu toftal ñetti téeméer ak juróom fukk ak euh, ñeent juróom-ñeent yoo xam ne génn na moom it euh, Cheikh Tidiane Dieye ñëw ci euh, moom it ak fukki junni xopp ak juróom yu toftal téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar Abib Sy ak Déthié Fall rawatina Daouda Ndiaye ñoom nag boo leen di xayma ci ay pourcentage daanaka boo ci jëlee rek téeméer boo jël dara bu toftal fanweer ak juróom Habib Sy moom euh, téeméer boo jël dara bu toftal juróom-ñaar fukk juróom-ñaar ci ay pourcentage Anta Babacar Ngom am fukki euh, junni xob ak juróom yu toftal ñeenti euh, téeméer ak juróom fukk ak ñaar daanaka nag boo ko xayma mu ngi toll ci téeméer boo jël dara bu toftal fanweer ak ñeenti Serigne Boub ñëw ci téeméer boo jël dara bu toftal fanweer ak juróom benn Papa Djibril Fall am dara uh, ci téeméer boo jël dara boo toftal ak ñeent fukk ak benn Mamadou Lamine Diallo am ci uh, téeméer boo jël dara boo toftal ñaar fukk ñaar ci ay xam ngi am uh, juróom-ñeenti junni xopp ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett Boun Abdallah Dionne Abdallah moomee nag am na dara ci téeméer boo jël dara bu toftal fukk ci ay pourcentage bu toftal juróom-ñeent noonu nag Malick Gakou moom it am ci téeméer boo jël dara bu foftal toftal uh, fukk ak uh, ñeent ci ay pourcentage Aly Ngouille Ndiaye moomee am na ci téeméer boo jël dara bu toftal ñeent fukk ak juróom ñaar moom Hadj Mamadou Diawo ci euh, téeméer boo jël dara toftal fanweer rek ñett Thierno Alassane Sall mu daal di tëj nag biir list ci ay xob yoo xam ne am na ci ñaar fukki junni ak juróom toftal juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn yoo xam ne ci téeméer boo jël daanaka dara bu toftal juróom fukk ak juróom a ñett la ci ay pourcentage wax nañu nag Sénégal yu jot voté ci biir élection présidentielle mbokk yi toll na ci ñeenti million yu toftal euh, juróomi téeméeri junni ak fukk ak ñee juróom-ñeent yoo xam ni ñaari téeméer juróom fukk ak ñett ñoo ci tege wax nañu nag ci ay enveloppe lañ daal di gis yile urne bulletin nul yoo xam ne nag euh, daanaka baaxul te askan wi daal di koy sànni toll na ci fanweeri junni ak ñett yoo xam ne toftal na juróom-ñeenti téeméer ak euh, juróom-ñeent fukk ak benn booy xaymaa nag lépp lépp luñ daal di sànni ci ay xob toll na ci ñeenti millions ak ñeenti téeméeri junni ak juróom ñett juróom yoo xam ni toftal na téeméer ak juróom benn fukk juróom yu daal di nag euh, sànni mooy suffrage euh, valablement exprimé ci ay euh, kàllaama tubaab waaye nag wax nañu taux de participation maanaam ci sénégalais yoo xam ne jot nañoo bokk ci élection yi daal di wote Euh, sànni seen xob toll na ci téeméer boo jël juróom benn fukk ak penn yu toftal fanweer si ay pourcentage mu ñeen élection présidentielle bu 2024 muy résultat yi nga xamante ne jamono ji tembe Bassirou Diomaye Faye a coalition Diomaye président ñoo jiitu laata nag résultat officiel yi ñu ñëw a génn ci wàllu koom ak ginnaaw bi nga xamante ni am nañ wooteem njiitum réew ci Sénégal daal dinañ am nag secrétaire général syndicat travailleurs techniciens yi nga xamante ni yëngatu ci wàllu agriculture muy mbay moomee nag Mor Diouf la moo xam le rek moom mooy programme bi jëm ci wàllu agriculture mu ngi woon nag euh, njiital réew mi ñu nar a euh, tabb ci bu yàggul dara mu daal nag xoolaat secteur bi ak li nga xamante ne moom moo mën a suqali Sénégal jaarale ko ci wàllu mbay moomee nag la ñuy teewlu sax ci téléphone bi ak rédaction bu Leral TV. maa ngi bépp liggéeykat bu nekk ci ministère agriculture euh, Bassirou Diomaye Faye ci ndam li nga xamante ni am na ko ci tànn njiitu réewu Sénégal dibéer gi ñu weesu di sargal. Euh, askanu Sénégal ci tànn bi ñu tànn seen njiitu réew ci dal ci tekk ak ci jàmm waaye ginnaaw bu loolu wéyee ñu ngi rafetlu tamit euh, wàll wi nga xamante ni euh, Bassirou Diomaye Faye jagleel na ko mbay ci programme am bi mu jagleel sénégalais di tamit attirer attention ci gouvernement bu bees bi nga xamante ni dina ko teg ci fan yi ñu ñëw di leen wax ni ñun en tant que syndicat ñu ngi leen di woo ci ay changement yoo xamante ni xóot xóot bu ñu bëggee secteur bi dox changement yooyu bokk na ci li ñuy wax wàllum subvention bi muy ndimbal gi ñuy def jëmale ko ci baykat yi bëgg nañ tànneefu li ñuy wax groupe producteur mu bañati nekk tànneef boo xamante ni day naaf tànneefu politique ñu boole ci tànneef boobu bu baax baax ñi ñuy wax les DRDR waaye ndaxte ñoom jàpp nañ ni kenn gënu leen a xam ñi ñuy tuddee les gros producteurs bokk na ci tamit euh, li ñuy xaar ci ñoom mooy ñu def audit càmbar bépp ñuy liggéey ak ministère agriculture euh, audit boobu nag càmbar boobu li ñu jublu mooy euh, ñi ñuy wooye ay contractuel audit boobu dina tax buñ ci génnee ñu xool bu baax a baax nuñ leen di régulariser dans la fonction publique ba tey ci wàllu koom ci xibaaru xaaj yi guddi gi jàpp lañ ne nag euh, bànkaas bi di banque west africaine du développement muy BOAD ñoom nag daal dinañu fësal lu toll ci ñaar fukki junni milliards ak ñett yoo xam ne daañ ko dugal ci ay projet euh, régional d'aménagement ci ay yoon yoo xam ne war nañ ko defar defar ci diggante Labé Mali Guinée euh, jaar nag ci frontière bu Sénégal fa nga xamante nag mooy ca Fongé Limbi ca Kédougou loolu nag nee nañ nañ euh, projet de désenclavement maanaam boo xam ne dina mën a leexal yoon yu ñu daal di lim léegi ci yile axe euh, ci l'Afrique mooy nag euh, liggéey yoo xam ne ci wàllu koom dina amal solo lool dëkk yi ko sëkk wax nañu nag communiqué bi ñu ko daal di fësal ci internet bi ngir rek képp koo xam ne da nga ci war a yëngu nga dugal ci sa loxo ci wàllu bile projet wax nañu nag ñu ngi ko daal di dëggal maanaam approuvé ko ci téeméeri yoon ak ñeent fukk benn bi nga xamante ne moo jëm ci session ordinaire conseil d'administration euh, ci bile banque ñu doon dajaloo fii ci Ndakaaru ci ab lël boo xam ne amal nañ ko ci résidence euh, bu président chargé euh, écoué noonu nag lañu ñu ko taxawale waxtaan bi la nag administrateurs yi daal di koy sekk waxtaanee ko ba génnee lu toll nag ci téeméeri junni milliards ak juróom-benn fukk ñeent yoo xam ne toxtal na ñeenti téeméeri milliards ak juróom-ñett fukk ak ñett yoo xam ne nag daañ ko dugal ci projet ma jot lim sànq BOAD nag jàpp nañ nag liggéey euh, faaw rek euh, ñu gën ko ñangal ndax tàmbali nañ ko mil jàttum 1976 ba néegi nii ngir rek mën a euh, leeral yenn mbir yoo xam ne jëm na ba tey ci ay projet yu soxal soxal réewum l'Afrique ñu daal di euh, te wax nag ci xibaaru bés bi noonu nag jàppale ne li nga xamante ne moom lañ leen andil ci euh, wàllu conseil euh, santé saa su moo xam ci am fruit la wala légume dafay baax lool ñu daan leen koy dëkkal dëkkal ci jamonoy koor giile nga xam ne nag am na solo boo leen koy jëfandikoo wax nañu nag fruit bii di clou ak girofle doon nag li nga xamante ni lu am solo la am na ci wàllum pàcc lu muy andi ngeen gën koo xam tamit tax léeg-léeg ci loolee ñu duppee xorom pole ak lu muy àndal yëpp ba na nag euh, dañu koy rek daal di teewlu moom euh, Fatou jaw mu daal di dikk ak ñun ci la muy fàcc jaw rawatina ci diabète euh, bopp ci bëñ buy metti waaye ulcère angine ak yeneen i feebar yoo xam ne xorom pole da koy daal di fàcc kontaanati naa loolu janoo gi yéen fii ci war Warkha TV sama mbokk internet yi maa ngi leen di ku ci nekk sa tur ak sa sant fii ci seen émission conseil santé tey nag li ma leen indil ñu ngi koy woowee clou de girofle clou de girofle boo ko déggee ci olof mooy xorompole xorompole nag ay boutons floraux la yoo xamante ne ñi ngi sax ci loolu ñu naan la girofilier moom dañ koy witteeg suñu loxo ba noppi weer ko ba wow kon moo ñuy jox xorompole boobu ñuy wax moom nag ànd ak nag ay ferñeent lu ci mel ni cinémaldéhyde am na eugénol am na tamit thymol am na vanilline am na carvacrol ànd ak nag ay ngëneelam ay ngëneel yu bëri sax mbokk yi dégg ngeen feebar boobu ñu naan jabet xorompole mën na participer ci traitement om yow mi jàmmat bëñ buy metti infection urinaire wala ngay jàmbat put buy metti angine ulcère loolu yëpp xorompole da koy faj teg ci tamit c'est un antibactérien anti-infectieux ak antiviral xolompoole daal mi ngi noonu mbokk yi ak ak yi ngéeneelam te jarul dara fii ci réew mi loo am mën nga koo amati de ngalawaay daw xibaaru soxol yoon ak yoonal ci Sénégal wala euh, li ko wër euh, jàppale ne nag euh, kii di ab chroniqueur ci ab télé noone moom moo jëm nag jamono ji tembe ci loxol yoon jàppale ne nag mu ngi wër ci turu Adama Fall moomee nag jàppale ni dañ ko dóor ab plainte boo xam ne ci Guy Marius Sagna la jógee honorable député moomee nag moo ko daal di sax xamle ci page Facebook noone moom Adama Fall nee na jot na ab plainte boo xam ne muy convocation bu bàyyeeko ci euh, brigade euh, cybercriminalité muy plainte boo xam ne nag euh, mouvement Guy Marius Sagna moo ko daal di joxe jobal ko procureur andoona nag la mu jàpp ne rek nee na moom mooy jamono ji ki njëkk féete ci kujje gi ginnaaw bu mu bàyyi ko ci alliance pour la république ñu koy convoqué ci kanamu yoon ba tax na nag moom Adama Fall euh, mu ngi ko doon di rek partagé ci benn page euh, chroniqueur ci Facebook bi jàpp ne nag nee na mi ngi woo uh, mboolem ci ay taskatu xibaar ci alxamis ci ñu jëm bu fukki waxtu uh, jotee ci suba uh, ginnaaw nag bi nga xamante ni daal nañ koy woo mu wuyu ji ci lu ko soxal ci ay mbiram diggante moom ak gi Guy Marius Sagna ñu wax ci doomu Sénégal ndem si yàlla Samba Dior Diagne nga xam ni dafa daal di eh, ñàkk bakkanam ne dañ ko daal di faat eh, foofee ca France ci gudd fukki fan ak ñaar jàpp fukki fan ak ñett ci weeru mars foofee ca Lille eh, ginnaaw nag bi nga xamante ne dañ ko dal di boom nag noonu avocatam di di doomu France di wuyu ci turu maître Emmanuel Lequian moom mi nag déposé na ab plainte boo xam ne faaw ñu topp ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yu ko faat wax nañ ni nag euh, moom mi euh, doomu Sénégal boobee nekkoon euh, ca France doon wuyoo ci turu Samba Dior Diagne mu ngi amoon ci acteur lu toll ci fanweer ak benn. wax nañ ni nag dañ ko daal di nag boom ci ay conditions yoo xam ne yéeme na lool ba tax na nag doone dañuy rek njaboot gi ñoom ñooy sàkku ci avocat. bii nga xamante ne daal nañ koy jël foofee ci bar Paris ñu daal di rek ubbi ab l'enquête boo xam ni dañuy leeral ci yan anam lañu ko faatee njaboot gi nag daal di xam ne ni mel ci app yéenekaay bi nekk ci Sénégal du l'Observateur jàppale ne nag xibaar bi moom njabootu euh, nem si yàlla Samba Dior Diagne ñoo ko daal di xamle nee rek faaw ñu topp ñu daal di faat seen doom ñu jàll ci xibaar yi nga xamante ni ñoo gën a fës ci euh, bëccëgu alarba ji ñu génn ak waa 3FPT ca diwaanu euh, Thiès ñoom nekk ci euh, pôle emploi maanaam lu jëm ci wàllu xëy la ñu xam ne rek mooy dimbali GIE ngeen xam ne dañu leen di tàggat ngir rek gunge leen bu baax a baax mooy soxna yi ñu gën a jaay seen i produit ci anam yu mucc ayib. ba tax na nag responsable territoire euh, moom ngokk ci bët Saloum bu Thiès ak 3FPT Laurence Diouf nee na fàttali liggéey bi lu am solo la ngir rek ñu mën a euh, tekk ay plan yoo xam ne dañ leen mën a topp ba tax na dañ koy teewlu rek ci ces micro correspondant foofee ca Thiès. ci foireel madame Diouf Laurence Suzanne Diouf c'est la responsable du pôle territoire ouest du 3FPT qui couvre les régions de Dakar et de Thiès. tey dañ fi teew. ci pôle emploi bu Thiès pour euh, waxtaan nag GIE yi ñu formé GIE femmes yi ñu formé fii ci diwaanu Thiès ci lu ñu woowee procédure Fra Fra nag boo ko déggee moom moo lay aidé mu mën a jaay ci grande surface yi mën na exporter également sa produit bu yemati kese ci foire Sénégal yi mais mën nga ko jaay bitim réew ndax day respecté ay normes yoo xamante ne dañ ko reconnaître pour accompagner femmes yi ci mois de mars bi ndax mois de mars yëpp mois wu femme la looloo tax ñu ne démb Dakar lañ nekkoon ñu ne tey dañuy ñëw Thiès fii pour jàppale suñu yaay suñu femme yi ñu mën a xam yoon bu ñuy jaar pour mën a am Fra boobu ba mën a gën a développer seen activité génératrice de revenu mën a yokk koom-koom bi ndax jigéen moom ku ko jàppale jàppale nga réew jigéen dañuy ne moom mooy euh, cellule de base d'une famille. te famille xam nañ société fa lay commencé fa lay soqe ko donc ku jàppale jigéen jàppale nga ñëpp loolu lañ comprendre nag ba tout le temps dañuy mën ay activités yoo xamante ne day promouvoir seen autonomisation bëgg nañ suñu yaay yi daal bu ñu jógee ci ndaje bi ñoom ñëpp ñu mën a am fra mën a di exposer seen produit un peu partout dans le monde GIE yi na amul tànneef GIE yi boo formalisé woo rek am sa NINEA wala boo dee association am sa récépissé mën nga am financement 3FPT 3FPT day jël en charge sa euh, montant formation à hauteur de 90 pour cent. Euh, Suzanne Diouf euh, njiital 3FPT foofee ca diwaanu Thiès ñu jàll ci beneen xibaar ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon ñoo doon màggal bëccëg bu ñu jagleel wàllu wàllum théâtre ci àdduna wërngal këpp nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bu jot lañ ngi koy amal ci àdduna wërngal këpp ci weeru mars mu ne nag ci Sénégal moom daal nañ koy màggal ci yoo xam ne acteur sekk wàllum théâtre ñoom dajaloo nañ nag génne ab xalaat boo xam ne jëmal nañ ko ci nguur gi sax nga xam ne moo fi waaj a toog ngir rek ñu taxaw seen wàllu secteur ak mboolem acteur wala actrice ci bile secteur théâtre waaw dañoo ñëw fii Sorano tey euh, pour célébrer journée mondiale du théâtre journée la boo xamante ne àdduna bi yëpp dañ koy féete donc euh, Sénégal desul ci ginnaaw comme yeneen dëkk yi da koy célébrer ak ay acteur culturels am te bi ko acteurs yi proposé mu nekk loo xam ne dafa am solo ñu tamit ñu ànd ceeg ñoom gis ngeen certainement tamit prestation yi jaar yi to jot yaa yëpp dañuy wax ci euh, ci waxu jàmm parce que jàmm si la lépp xaj donc théâtre tamit rôle am la muy sensibiliser population yi mais di sensibiliser tamit euh, autorités yi pour ñu sàmm li nga xamante ne Sénégal li gën am solo ci ci dëkk bi euh, loolu am maanaam jàmm donc euh, encore une fois day wane rôle bi culture am ci ci développement wu dëkk mais rôle bi culture am tamit ci stabilité wu dëkk. donc dans l'éducation am na théâtre tey na ba am théâtre mais ñun tamit loolu dañ leen soxla benn partenaire la ñu am mooy la direction des arts te direction des arts gouvernement bu ñëw fekk ko fi gouvernement buy dem bàyyi leen fi donc c'est des techniques mais amuñu moyen yu fi jaar maintenant le président de la république ñu ngi koy ñaan mu walluñu ci ñetti point benn bi mooy un fonds pour le théâtre parce que waa comédiens yi dajaloo nañ def seen plan stratégique saa su bëggee mun nañ ko ko jox mu xam lan la ñu soxla ak fan lañ dem ak ñaata lañ soxla beneen bi mooy statut bi nga xam ni moom la ñu validé il y a deux semaines écoutez vous imaginez ñu ñu ñi dund ba dee bu ñuy dee bu ñu feebaree dañ leen di ketal bu ñu amee ay problème social dañ leen di dimbali ñuy tàllal loxo ndax lan parce que statut boobu kenn kenn kenn kenn voté ko woon. guddi tegal na euh, ñaar fukki simili ak ñeent ci 96 point 1 bi teewlu ci ndakaaru ak li ko wër mbokk ñu ak génn ci yeneen xeetu xibaar mu ñeel bitim réew lu gën a fës ca pitim euh, euh, loole nag laata ñu si euh, egg dañuy dem ak yenn ci xibaar yi ñeel wàllu internet bi ak li nga xamante ne moom moo ci gën a fës ci yenn sit yu Sénégal noonu Mamour Mbaye lañ ci àndal la ñu tàmbali xibaar yu ci internet bi ak site bii di Senenews fële ca géejawaay benn way tawat bu yor jàngoro sida moom lañ fekk muy sàcc ci benn juma pour fay li nga xam ne moo di ordonnance su yaayam bu feebar juma bi nga xamante ni dafa nekk ca liggéey fële ca Medina Gunaas ca géejawaay ñu daal di koy visiter pëccëgu ndar kàmb fekk fa ki nga xam ne moo di waa ji muy sàcc ci jour bi ki nga xam ne moo yor wàllum liggéey bi moom moo fa dem yóbbaale ay bagaasam ba mu demee ci la fa fekk waa ji moom kese muy daal di sàcc mu daal di fay jël benn amplificateur ci biir jumaa ji bu ñu paree dañuy dem ci site bi nga xam ne mooy dakaar Dakaractu fële ca pikin benn ndaw la ñu rey ñi nga xam ne ñoo ko rey ay élément police lañu ñi nga xam ne ñoo di ay xaritam ñu ngi attaqué commissariat bi di ñaan rek yoon daal di teg loxo ñi nga xam ni ñoom ñoo def jëf ji situation bi tar na lool fële ca Pikine ay ndaw ñu ngi kaas ginnaaw bi ñu reyee seen xarit bi di Mouhamed Diop ñu gën ko xam ci Taaya ñi nga xam ne ñoo di waa police dugg nañ foofu ci guddi altine ak talaata bu njëkk benn ndaw lañ doon wër bu tudd ndeen ne ginnaaw bu ñu duggee ci koñ bi ñu fekk fa yeneen ndaw yi daal di leen di dàqee ñoom ñëpp ñu daal di leen di jàpp di leen torturer am ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu ñii daal di rëcc waaye ki nga xam ne moo di ndaw bii di Mohamed Diop moom daf see ñàkk bakkanam mu nekk situation bu méttee métti fële ca pikin dañuy jeexal xibaaru internet bi ak sit bi nga xam ne moo di leeral point net ki nga xam ne moo di Wally Balago Seck mi doon jàppale Amadou Ba ci palum njiitum réew mi mujj na félicité ki nga xam ne mooy euh, Bassirou Diomaye Faye moom mu ñu fal bees ci boppum réewum Sénégal kii di Wally Balago Seck li mu wax mooy air er bu bees mu ngi dessiné wu te sénégalais yi am nañ yaakaar ci Bassirou Diomaye Faye ba tax ñu tànn tànn ko Waly Balago Seck félicité na ko te félicité sénégalais yi kii di Waly Balago Seck li mu wax rek mooy boo bëggee sa réew lépp loo xam ne rek da koy jëmal kanam da nga cee war a dox moo tax mu daal di ñaanal kii di Bassirou Diomaye Faye doole bi nga xam ne dina ko mën a dëkkoo yenn bi même bu nekkee ni kii di faramaren bi Amadou Ba la àndaloon ci élection yi fii lañuy ñuy yem ak yéen ci xibaaru internet bi jërë ngeen jëf Mamour mbay lañ doon àndal ci xibaaru internet bi ak yenn site yu Sénégal ca gën a fës ci xibaaru bitim réew ñu leen ko doon junj ci bopp yi ginnaaw bi nga xamante ne bàkk bi daanu rek ñu ànd ci ak yenn. xibaaru bi tey réew dinañu yóbbu ca Togo Haïti Hezbollah ak lafa xew yaatalu ak Awa mat leen Diop la. li gën a fës ci seen i xibaar yi bitim réew dañu koy doore foofee ah, ca Togo ñuy xam le ni nag ah, gendarme togolais nag dañoo daal di dàkkal àllarba ah, ci suba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars bi nekk ab benn conférence de presse ba nga xamante ni si ña bokk ca parti opposition ba ak waa organisation yu société civile yi nag ñoom ñoo ko amaloon ca boobu leen ndaje nag am na ci ñaari taskatu xibaar yoo xamante ne si nee nañ ni lawundu rek boobule ak conférence de presse nga xamante ne si moom la gendarme yi daal di dàkkal moo ngi bàyyeekoo ci quarante huit heures après ginnaaw si ba ñu joxe la nga xamante ne si moom mooy adoption wu nouvelle constitution bi maanaam constitution bu bees boobu ca assemblée nationale bu Togo nga xamante ne si moom mooy andi coppite wu régime ba nga xamante ne moom la ñu amaloon seen réew muy régime présidentiel yóbbu ko ci régime parlementaire. bu euh, buñ jógee ca Togo dañuy daal di jàll ak ca réew ma Haïti ñuy xamle ne fi mu toll nii naka lu ëpp téeméeri junni juróom-ñaari français ak junni juróom-ñaaru européen la ñu daal di jëlee foofee nag daal di leen yóbbu ca Haïti ñu nekk nag ay ressortissants étrangers te jamono ji réew ma nag dafa nekk ci ab kaw total ndax fi mu toll nii rek guerre fay wéy ca la nga xamante moo dox ci diggante l'armée ba ak gang yi. bu ñu fa jógee nag dañuy daal di jàll ca Hezbollah bu Liban ñuy xam ne nag àllarba ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mars biñ nekk lañ daal di sànni ab roquette foofee ca bët gànnaaru Israël loolee andi nag ab benn bombardement nocturne bu mag a mag ba nga xamante ne si jur na ci ay junni junni doomi aadama yu si ñàkk seen bakkan waaye itam yu si jëlee ay gaañu gaañu yu métti lool. lii li ñu indiloon tey nag ci seen xibaar bitim réew. di ko jaajëfal moom Awa Marie leen Diop di ngeen ko am bu ñett waxtu jotee ci guddi mu daal di yaatal xibaar yi ci ci euh, kàllaamay tubaab ak ni mu gën a leeree ñu daal di nag jàll ci xibaaru tàggat yaram ak la ca gën a fës ci ponk yi muy Ligue 1 bu football euh, sénégalaise football professionnel wàllu basketball la ñu koy ndarkeppee ci xibaar ci tënk dañuy wax nag ci ligue football professionnel bu Sénégal jàmbaar football club euh, jàppale di nag jamono ji ba tey euh, mu ngi ci euh, suufu classement bu Ligue 1 bu Sénégal noonu nag mu ngi nekk foofee ci sali ci fukkeeli journée ak juróom-ñett mu ngi jot amal jàppale ne nag académiciens yi noone bi mooy juróom-ñetteeli jongante nu ñu daal di am match nul seen diggante nag jàmbaar football seen diggante ak AS Pikine la mbir mi daal di amee sekk liggéey bi ci ah, leen di tàggat yooyu gone jàpp nañ nag ci jeexatalu laata jeexatalu championnat bi mm, dinañ gis seen bopp ci ah, anam yu mu gën a yaatoo Alioune Touré moomee nag bokk ci team management bi jàmbaar football club xam ne ni joueurs yi am na lu ñu daal di rek manqué ci wàllu dugal ay but ndax loolee nag daañ ci liggéey noonu la ko xamle ndax rek ñu mun a des nee nañ ci championnat Ligue bu Sénégal loolee nag mooy objectif bi ñu daal di jàll ci neen résultat ci fukkeelu journée ak juróom-ñett euh, noonu nag dina mën a wéy euh, ci déplacement boo xam ne euh, jaraaf de Dakar dina ko def foofee ci Thiès mu nar fa dalal wala nag jonganteeg Sonacos ci stade Lat beneen choc bi diggante Dakar Sacré Cœur la ak Tëngéej football club ci stade Alassane Djigo Géejuwaay football club dina fa dajeek eh, kii nga xam ne moom mooy stade de Mbour foofee ci stade Amadou bari loolu yëpp nag ginnaaw eh, bi nga xamante ni US Gorée dina dalal eh, dajeek Casa Sport ak Linguère ji jamono Fatick. loolu nag daanaka bu euh, ñeenti simili jote ñeenti waxtu ci ngoon jotee ba tegal fanweeri simili la yooyu jongante euh, nara am ci championnat bu euh, Sénégal ci bëccëgu alxamis ci ñu jëmm jàppale ni nag ci wàllu basketball Côte d'Ivoire moom mooy dalal édition 2025 bu afro afro basket ci wàllu soxna yi no ne nag directeur bu fibaa Afrique moo ko daal di xamle ci àpp lël boo xam ne sekk na kook ñu mu doon liggéeyal ci week-end bi ñu jëm wax nañu nag phase finale bi dina am ci weeru juillet ci atum 2025 ginnaaw Coupe d'Afrique des Nations bu football noonu nag Abidjan dina ne nekkaat capitale ci wàllu sport ginnaaw Coupe d'Afrique des Nations jàppale ne nag Nigéria moom moo jëloon ndam li ci Afrobasket bi ñu daal di génn ci soxna yi ci atum 2017 gaynde yi nag ñoom ñoo nekkoon vice championne d'Afrique en titre العبادة ba tey ci wàllu basketball ak tournoi international ci ñi nga xamante ne seen at euh, fukk ak juróom-ñett la daal euh, toll million so yu Sénégal nag ñoom euh, am nañ seen ñaareelu bëccëg yi ñu daal di jongante ci stade amitié bu Bamako ci alxamis ji ñu jëm lañ koy nar a amal noonu nag dinañ dajeek Tunisie bu fukki waxtu ak juróom-ñaar jotee ci ngoon muy jongante boo xam ne nag dinañ mën a jaayante ba mën a nekk des ci compétition bi ginnaaw bu ñu amee seen défaite bu njëkk seen digg digganteeg uh, waa uh, Mali nga xam ne nag uh, gaynde yi ñu ngi jot a dugal toll ci juróom fukki pañe ak juróom yoo xam ne Mali moom daal dinay dugal juróom benn fukki pañe ak juróom benn loolu nag nekkoon ci première journée noonu ci championnat les lion championnat tournoi international bu ñeel ñi nga xamante ne seen at fukk ak juróom-ñett la daal di yam ci basketball bu Afrique mu jeexlee xibaar yi ak wàllu euh, people xam ngeen ne nag euh, lu jëm euh, ci star yu nekk ci Sénégal ñu ngi woy di féliciter ki nga xamante ne nag moom mooy njiit bu ñu tàbb yes ci Sénégal président Bassirou Diomaye fay bokk na si ñoom nag kii di Viviane Chidid moom nag moo ko daal di xamle ci ab compte Instagram am daal di féliciter bi Bassirou Diomaye Faye waaye nag noonu ci liggéey yoo xam ne nag nee jamono ji Sénégal soxna na ko ngir rek ñu mun a euh, suqali réew mi jaarale ko nee na ci ndaw ñi balasa nag mu ngi koy soññ bu baax a baax ak lépp lu jëm euh, ci euh, respecter démocratie bu Sénégal rawatina nag engagement yoo xam ne ñoom war nañ ko am ngir liggéey réew mi nee na nag li ci dàkk mooy ci jimmi jamono dina am yeneen mbir yoo xam ne Sénégal mun na ci am lu am solo ginnaaw nag bu ñu sampo nekk ci wàllum liggéey mu ngi koy ñaanal jàmm waaye nag di ko gën a soññ bu baax a baax ngir rek mu gën a liggéey ci réew boo xam ne jàmm dafay am waaye tamit yokkute ba faw ñu wax nag ci leneen ci wàllu people ak actrice bi di wuyo euh, ci tuuru euh, Nefertiti ngeen gon koo xam ci Fat Bintou ci série Babel nga xam ne nag dafay daw ci YouTube bi moomee Fat Bintou nag moo daal di xamle ni ab dëj maanaam dafa daal di nag ñàkk ab tantam euh, noonu nag ginnaaw bi nga xamante ne ngeen baal ma dafa daal di ñàkk maamam bu jigéen ginnaaw nag bi nga xamante ne mu ko doon fësal ci réseau réseaux sociaux yi nag jamono ji euh, ci euh, période deuil la toll maanaam ci dëj la nekk ngeen koy gisee noonu euh, Banel Diallo la tante ji doon wuyo waaye nag jàpp ni moomee moo daal di fësal bile xibaar rédaction bu Leral TV di ko jaale bu baax a baax ci dëj bi nga xamante ne moom la nekk bi xibaar sax ci wàllu people mooy buur yi la jotaay xibaar ci kàllaamay wolof xibaar yi dina ñëwaat bu ñetti waxtu jotee ci kàllaamay tubaab ak awa marimat leen Diop ñu leen jox dig daje ci juróom benn waxtu ci fajar dégtal leen xibaar yi tamit ci kàllaamay wolof laata loolu di leen wax rek ngeen wey du topp seen télévision Leral TV mbaaleku jokko yi rawatina Leral FM 96.1 ci Dakar ak li ko wër di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk ci yéen mbokk yi guddik jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ne télé bi ngeen doon xaar tàkk na dee Leral TV 100 pour cent xibaar maa la ko wax te nag télé bi fépp la yegg ci Sénégal dee da ko dooru TNT ba nag ñu ngi ay xibaar yu gaaw te wóor. Leral TV di télé bu bees bu andi ay émission yu bees tàq ngeen bëgg am ay xibaar yu wóor.